ñu logique lañ nekk dañ koy def incha allah. dégg nga ko kàddu voilà loolu di euh, réaction kenn ci euh, militant yi nga xam ne kon euh, ñoom ñoo nekk fii ci. Fatick euh, militant Pastef fii kon gis ngeen ba léegi cortège bi kon mu ngi daal di taxaw euh, xëy na euh, dafa am tuuti kii ci par rapport ak li nga xamante ne moom moo di itinéraire bi waaye ñuy xaar rek ba fan la ñuy daal di mujje jaar. kon jamono ji kii di Déthié Fall ak ki nga xamante ne moo di mali Gakou ñoo nekk foofu ci kanamu li nga xamante ne moo la bokk ci kaw li nga xamante ne moo di ci euh, oto bi. waaw dama jël ngañ dem voilà ñu ànd daal di et le président Ousmane Sonko à l'accoutumée comme ni mu ko defee feneen dina délivrer un message boo xamante ne discours thématique lay doon maanaam xam-xam lay wax wax ñii dëkk fii lan mooy seen potentialité wu gox dans le cadre de l'aménagement du territoire dans le cadre du projet te bu ñu waxee projet bi nag ñëpp xam nañ ñeent axes yi li nga xam ne mooy tronc bi ci garab goobu noonu muy baobab bi li koy symboliser mooy un bon aménagement du territoire te zone centre dafa am un rôle crucial un rôle fondamental bu muy jouer dinañ waxtaan ak ñoom ci potentialité wu gox bi ci potentialité yooyu lan la ñuy utiliser pour mu nekk un bassin arachidier mais une zone de l' agro industrie nekk aussi un hub logistique loolu président dina ci ñëw wax ak ñoom mais bu loolu weesoo nag li ci des mooy on va adresser un message à l'endroit de toutes les JPS mooy ñu xam ni liggéey bi du caravane yi rek mais c'est de continuer le travail de proximité qu'il faut faire dans tous les villages yóbbu fépp spécimen bi ñi nga xam ne jëliwuñ seen carte ñu fexe dem jëli seen carte fépp et que le reste au soir du 17 novembre ñu xam ba xam Fatick titre foncier la wala du titre foncier. Hmm. wala boog titre foncier bi dañ koo muté ci turu keneen. d'accord <laughs> incha allah bi nga xam ne moom la nemmee ko ci élection ci yenn barab yi ban kàddu nga am pour wax. waaw d'abord bu violence amee li ñuy xam mooy situer li ñu njëkk def mooy situer responsabilité yi. ñi ñu xam ne origine violence bi du leneen lu dul ñi nga xam ne mënuñu indi xam-xam te d'ailleurs ils maanaam buñ duggee ci classe politique u Sénégal ba léegi fëgg dënn nañu xam ak banditisme donc li ñuy wax militants yi mooy ñu am sérénité waaye bu ñu ñàkk fayda parce que tamit nit mun nga protéger sa bopp mais nag ñu respecter la loi li ci des nag di manifester suñu soutien à tous les responsables de Pastef notamment Abbas Fall et toutes les coordinations euh, communales de la coordination départementale de Dakar di leen wax ñu ànd ak seen sérénité ak seen dal comme ni ñu leen wax xam doxal jikko bu rafet te liggéey incha allah pour une victoire. au soir euh, de l'ex-président de la République du ah, WhatsApp bi dafa dagg <laughs> ah gars yi dañoo coupé internet bi. ngeen ko. non pas au courant <laughs> mais ñu ngi koy xaar. <laughs> bon retour à lui. la République ñu gis ni tamit il y a la présence d'anciens ministres et DG yi nekk ci localité bi mu nekk seen localité bi bu ñu ko mënee wax noonu lan moo nar a nekk stratégie bi ici à Fatick. ah non mais stratégie bi moom lu ñuy wax mais li am solo mooy wax ak sénégalais yi te loolu moo mës a nekk suñu stratégie ñun suñu stratégie daluwul ci lu dul d' abord dem au contact des sénégalais ñaareel bi mooy délivrer un message audible mais un message boo xamante ne il est structuré argumenté et documenté te loolu la ñuy def bi ñuy nekk ci opposition loolu la ñu doon def waxuma la ak léegi ñu am plus de données ba pare am un référentiel bu leer boo xam ne projet bi ñu jaayoon sénégalais yi bañ votel ju nañ benn dispositif bu koy opérationnaliser am agenda bu leer boo xamante ne ci fii ak 2050 waaye ci fii ak 10 ans ci fii juróomi at lan lan lañ lan nañ war a def ak kan ak kan moo ko war a taxawee. kon mbir mi du jafe incha allah. jërëjëf merci. mu nekkoon la réaction de ki nga xam te moo di maître nga Demba Touré nekk euh, coordinateur GPS. Euh, Euh, national kon moom maître euh, ngañ demb euh, Touré moom moo doon daal di adressé wu kon ak nga xamante ne ñoom ñoo di. mais soo la jeunesse patriotique. moom hmm. moo kon euh, di leen xamal rek na ba léegi kon cortège baa ngi nii kon euh, taxaw cortège baa ngi nii euh, mel ne kon dañuy daal di bëgg a teg beneen stratégie wala bokk yeneen ordre yoo xamante ne dañ koy xaar ngir mën a kon ngir mën a kon daal di. Euh, xool euh, ban voie la ñuy daal di emprunter waaye itam ban itinéraire la ñuy euh, jaar kon ngir def li nga xam moo di caravane bi fii au niveau de Fatick Fatick nga xamante ne kon comme ni ma ko waxee am na benn représentativité bu. bu am solo ci li nga xam moo di ci poids électoral waaye itam xam nga ne bëri na li nga xamante ne moom moo di ay DG ak ay ministre de l'ancien régime yoo xamante ne ñu ngi woon fii kon mu nar nekk li nga xamante ne euh, moom mooy. également bu mhm. euh, comme kon ni ngeen ko euh, gisee noonu ba tey rek cortège baa ngi noonu taxaw ci suñu euh, ginnaaw mel na ne kon rek dafa am loo xamante ne moom la ñuy daal di yi on s'est approché de ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ko si mel ne kii di maître Ngagne Demba Touré ak message bi mu daal di délivré léegi waaye waxul lan moo daal di kon te li nga xamante moo di caravane bi kon mel na ne euh, gis ngeen noonu ci kaw oto bi kon kii di Déthié Fall ak ki nga xamante ne moom moo di euh, maître Malick Gakou ñoom ñoo daal di nekk ci kaw oto bi. kon kii di euh, le président du PASTEF Ousmane Sonko moom mu ngi ci biir oto bi euh, génnagul euh, ba tey voilà di li nga xamante ne rek moom mooy li am fii nga xamante ne moom moo di fii ci Fatick kon ñu wéy rek di leen toppal li nga xamante ne moom moo di. Euh, li nga xamante ne kon moom moo di caravane bu euh, Pastef kon mel na ne caravane baa ngi noonu dafay daal di avancer kon. avancé booy géral ma cortège euh, baa ngi noonu kon mel na ne dañuy bëgg avancer ndànk-ndànk kon kon gis ngeen noonu kon euh, gis ngeen noonu li nga xamante ne euh, moom moo di euh, li fi am di leen fàttali